pour yow yonent bi dafa jékki-jékki rek Abdoulaye nekk sàmmkat di dox nii dajeeg Amina ñu maye leen yonent bi judd yow loolu nga jàpp yëgoo lu xew yàlla nee na bi ma bëggee indi ku mel ni Seyduna Muhammad la ma njëkk a def muy sama yitte mooy kan moo war a doon yaayam <laughs> jabar dañ koy tànn billaahi wal jabar dañu koy tànn soxna ku ko bëgg danga koy tànn ndax yàlla bi mu bëggee indi yonent bi nee na toog naa diir man yàlla man yàllaay wax de nee na toog naa diir di wëral yonent bi yaay ñu ne ko yàlla looy bañ mu ne parce que bëgguma n'importe qui yaay jur yonent bi ëllëg buñ ko dee tagg ñu agsee ci yaayam boros noonu jàll rek xam ni mais yaay ji ko doy waar la loolu laay bañ te nit ñi lu nu béralul danañ ko yelu lu nu waxul ci suuf wax ko ci kaw te pour nga mucc ci yii nag da ngay tànn d'abord yaay ba pare doo ko xool kan nga war a am affaire doom bu mu la intéressé gun mais xoolal kan moo war a doon sa yaayu doom ba pare moo tax yàlla toog diir bu yàgg di xalaat kan moo war a doon yaayu Seyduna Muhammad xam nga luy texte bi fii dama fii damaa'iril ni tuxtaaru lakkal ummahaatu wal aabaau yàllaa ngi toog diir bu yàgg di wëral yonent bi ku war a doon yaayam ba dajeeg Amina samaam alaaji Malik ni naqiyat an saa iri tuhami moo ko may mu mën a ëmb Amina mu mën a ëmb yonent bi alaaji Malick nee na bi yàlla gisee Amina mu set wicc zéro tâche sans commentaire sans intérêt mu xam ni kii war naa mën a ëmb yonent bi mu fexe ba Abdullahi gis ko jabar dañ koy tànn ñun waa senegaal ni ñu koy tànnee ak ni ñu ko lislaam tànn loowee du benn jabar balaa nga koo takk danga koy seet seetaat ko gis nga yow muudu muudu bi nekk Europe di daan doole amagoo kër amagoo këyit sa farata du jabar sa farata mooy këyit kër lii mooy dëgg nekk bitim réew di liggéey amagoo këyit amagoo kër ñu topp la ci kañ ngay takk jabar kañ ngay takk jabar kañ ngay takk jabar nee leen takkuma lu xew mais imaginez nekk bitim réew amagoo këyit ñu takk loola jabar fii ci senegal jël sa jabar fobeere ko karo yi ba mu maar avant ngay ñëw seen kër deuxième étage la sa jabar ji sëy si ci kër gi te gisagoo ko mooy fobeere vingt quatre heures sur vingt quatre yow boo ñëwee ay ay <laughs> ab ciment plâtre nga fi fekk takkal jabar takkal jabar yaa ngi bëgg a yàgg bitim réew sama yaay a ngi nii amul ku ko jàppale man sax yenn saa yi damay jàngi te damay am ay besoin sa mag yu jigéen yee koy wax de ak sa rakk yu jigéen il faut nga takk jabar parce que nangam ak nangam amagoo këyit amagoo kër looy doyee jabar jënd connexion di joxe dépense ñu fobeereloo sa jabar ba du nuru nit ndax boo ko wutalee jànq sa yaay dal ci sa kaw fii senegal maire yu bari bëgg nañ seen bëneeru doom mais bëgguñu seen bëneeru goro loo nar a defal sa jabar sa yaay opposé wu ni la dafa ëpp ci moom parce que man awma ko lu xew lii moo fi am bari na ku nekk ak soxnaam mënul am intimité bëgg na bari na lu mu bëgg a defal jabaram mënu koo defal jabaram parce que bu ko defalee jabaram yaayam opposé wu bari na ku bëgg a yóbbu sa jabar Europe mu ne ci sa biir xel mais boo ko tuddee sa yaay rey la